أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته batay ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi ànd ak yéen ci suratul baqara di jël aaya cent mille sept yaakaar na ñaata la cent soixante-dix-sept mu nekk benn aaya bu ñuy jël darsu tey bi di ci jëlee juróom ñaari mbir bi ci njëkk mooy aaya yi daf ñuy jàngal doylu walla jàpp lenn ci diine bàyyi leneen li ki def loolu kenn du ko jàpp muy ku gëm yàlla ki jàpp lenn ci diine bàyyi lenn boo doon joxe misaal nga ni waa ji dafa jël julli rek bàyyi leneen kenn du ko jàpp jullit loolu shahid bi lan la mooy yàlla ne afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn bàyyi lenn kon lislaam lépp ngay jël amul jël li bàyyi lii loolu dinañ ko jàng tey ci benn aaya bi ñu fas yéene jël tey dars ñaareel mooy arkaanul iman hiya al mazkura fi haadihi l aaya ponki ngëm yàlla ngëm yàlla goog nga xam ne dafa nekk juróom benn mbir juróom benn keno ci hadisu jibril boo xam ne muslim moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ngëm mu ne an tu'mina billahi nga gëm yàlla wa malaikatihi nga gëm malaaka yi wa kutubihi nga gëm téere yi wa rusulihi nga gëm yonent yi wal yawmil axiri nga gëm àllaaxira wal qadri nga gëm dogal xayri wa sharrihi li neex ak li naqari kon kenoy ngëm yàlla dinañ ko jàng ci aaya bi tey nekk sunu kanam ñetteel li ñuy jëlee ci aaya bi mooy bayaanu wujubul infaq yàlla dafay wone ki am naka lay joxe alalam ci yan anam la war a financé ci yan anam la war a dépassé pour mu am tiyaaba yowmal qiyaamati ëllëg ci aaya bi ba tey yàlla day leeral waa jooju war a joxe ñan la war a jox nekku rek nga yor say milliards ay malet di jox ku la neex mais dafa am ñoo war a jox ñeenteel lu ñuy jële ci aaya bi mooy bayaanu azamu sa'ni solaati wa zakat yàlla day leeral mbirum julli ni mu màggee ak mbirum joxe azaka ni mu màggee dañ koy jàng ba tey ci aaya bi waaye dañuy jàng ci aaya bi ba tey wujubul wafaa'i bil ahdi respecter rendez-vous respecter signature respecter parole sàmm kàddu dañ koy jàng ci aaya bi tey incha allah ci kàttanu yàlla juróom-benneel mooy wujubu sabri wa xaasa inda al qitaal sunu borom subhaanahu wa taala waral gi mu waral sunu kaw muñ rawatina ci jamonoy xeex nga muñ dinañ jàng juróom-ñaareel ci aaya bi mooy at taqwa hiya malakul amri ragal yàlla mooy kenoy mbir yi ragal yàlla wal gaayatu allati ma baadaha lil aamilina gaaya jubluwaay wala objectif mooy jubluwaay yi jullit ci kaw suuf du lenn lu dul ragal yàlla mbokk yi ci yàlla bu ñu tënkee mbir yi ci aaya bi nga xam ne benn aaya la dinañ gis ne sunu dars tey aaya bi la làmb waaye ba la ñuy jël aaya bi dina am lenn rek lu ñu dara leeral ci ñeenti tomb comme sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ci aaya bi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على هبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين في- وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اللهم اجعلنا منهم sunu borom subhanahu wa taala mu ne laysa nekkul albirra mbaax mbaax nekkul fi ngeen ko foog mbaax nekkul maamaana albir lan mooy mbaax mu ne ismun jaamiun li kulli xayrin wa taatillahi wa rasulihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaax tur la woo xam ne dafa ëmb boole lépp loo xam ne yiwu la bu ànd ak topp yàlla tabaraka wa taala ak roy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam loolu mooy mbaax loolu mooy bir bal aaya bi dafa leeral dëgg-dëgg tasihu mafhumul bir aaya bi dafa leeral bu baax sunuy bopp pour ñu comprendre lan mooy mbaax mbaax gi ñuy dégg diw dafa baax wala lii mooy mbaax lan mooy mbaax mu ne hadihi l aaya dafa leeral wujuhul bir anamu mbaax tawdihan daqiqan leeral wu wu- wu sew wu xereñ mu fassalan bu ànd ak pirim mu bayyina bu ànd ak leer aaya bi ne an al mujarrada istiqbaalu jabhatin muayyana jël sa xar kanam di ko jubal ci wenn wàll moo xam penku la moo xam sow laysa haza huwa qawaamu diin loolu nekkoy nekkul ak mbaax nekkul kenoy diine ñun tey jàpp nañ ne ku ñu gis mu dëkk ci jàkk ji wala ñu ne diw day xiyaamul layli bu guddee du nelaw bu ñu xëyee suba ñu ne kii mooy mooy amiru ñu gëm yàlla ñun loolu lañ jàpp moo tax nattukaay yi nit ñi di nattee sunu borom subhanahu wa taala nattewu ko te mu ne lay sa nekkul albirra mbaax antu wallu ngeen jubal wujuhakum seen xar kanam yi qibalal mashriqi wàllu penku qibalal mashriqi wàllu penku wal maghribi wala wàllu sow waaw loolu du mbaax de jël sa xar kanam rek di ko jubal penku wala sow ne yow dangaa baax ne yow ku gëm yàlla nga am nga imaan déedéet yàlla nee na du loolu de kon lan mooy mbaax mu ne albirru aqidatu naqiya xaalisa mbaax pas-pas la bu set wécc bu taqul dara naqiya xaalisa dafa set sell pas-pas la kon ki pas-pasam wérul baaxu bu fekkee albir aqida pas-pas mbaax pas-pas la bu set wicc lan la ëmb tatamassalu fi qiyaami l insan bi waajibihi naxwa xaaliqihi dafa ëmb moom mbaax taxaw bi nga xam ne doomu aadama dina ko taxaw ci li nga xam ne moo ko war ci wetu boroomam kon ku ñu gis taxawoo li la war ci sa wàllu boroom yow baaxoo ëmboo sax mbaax jegewuloo ko kon balaa nit di baax li ko war digganteem ak boroomam mu taxaw ci haza huwa al bir wa mata yakunu zalika mu ne bil imaani billahi waxdahu imaanan xaalisan jamono bi doomu aadama bi taxawee gëmmi boroomam subhaanahu wa taala moom kenn kott dong boolewul ci ngëmam jaxasewu ci lenn wala kenn mu setal ko wicc taxaw ci li ko boroomam sant ku ko gis mën nga ko adresse ak mbaax ñetteel mooy albirru qiyaamul insaan bi waajibihi naxwa mujtamacihi tomb yi may lim yépp mu ngi ci biir aaya yi kañ la kañ la nit di baax su taxawee li ko war digganteem ak sociétéem ndax aaya bi indi na lool su gisee kenn koo xamante ne xam na li ko war digganteem ak ñi feebar digganteem ak ñi ñàkk digganteem ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw digganteem ak ñi néew doole yi saa yu jullit taxawee loolu xam li ko ci war su boobaa mun nañ ko seedeel albir mun nañ ko seedeel ku baax ñeenteel mooy albir qiyaamul insaan bi waajibihi naxwa nafsihi mbaax mooy nit taxaw li ko war ci boppam lan moo la war awalu maa yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi thumma maarifatu maa yuslihu bihi farda aynihi nga taxaw ci li la xam li la war ci say farata yi tegu ci sa kaw yi la yàlla sant lan moo la ci war soo boolee lii lépp yaa ngi doog a dugg ci biir yaa ngi doog a baax mbokk yi sababu nuzul aaya bi ñuy jël tey lan moo tax sax aaya bi wàcc mooy yahud yi dañu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jublu masjidul aqsa ba ci yàgg rek mu daal di bàyyi masjidul aqsa daal di bàyyi daal di jublu makkatal mukarram bi ñu gisee lool rek yahud yi ak naafiq yi ñu commencé di xuus di indi ay wax ñu naan waaw ñii maa wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha lan moo tax ñii ñu bàyyi jublu penku bi nga xam ne moom lañ doon jublu fa anzala allahu haadihi al aya al karima yàlla daal di wàcc aaya bi di dajji seen wax jooju ñuy wax yàlla di leen xamal ne mbaax nekkul jublu penku wala jublu sow mbaax du loolu kon ñun tamit jullit yi danañ ci jàngee ne dem jàkka taxut a baax pourtant waa ji day dem jàkka de ñaata yoon ngeen di gis ku dugg ci jàkka pare ay dàllam réer ci jàkka ji dégg naa semaine bi ñuy wax ci rajo benn jàkka boo xam ne dañoo dajji kees gi yóbbu moket yi yóbbu rajo bi kan ci yéen moo dégg loolu man de dégg naa ko ci benn ra ci benn ci benn ci benn gox fii ci gox yi ñu yóbbu bagage yi jàkka jëpp kon sunu borom nee na laysa nekkul albirra mbaax an tuwallu ngeen di jubal wujuhakum seeni xar kanam qibalal mashriqu mashriqi goxu wetu penku bi wal maghribi wala wetu sow bi kon luy mbaax mu ne walakin albir waaye mbaax li ci njëkk pour doomu aadama baax man mooy ki nga xam ne amana billahi gëm na yàlla loolu mooy lu njëkk loolu mu la doon gée dégg yàlla naan ëllëg yowmal qiyaam ku amul imaanu billah loo def da ngay perte moo tax dafa am surut qubulul amal sart yi yàlla nangoo jëf nit bi ci njëkk mooy al imaanu billah soo amul imaan nga ñëw tabax jàkk amul njëriñ boo amul ina imaan nga ñëw bann teen nit ñi di naan amul njëriñ loolu nga def da ngay perte rek amul benn njëriñ boo tabaxee hôpital amul njëriñ kañ la yàlla di nangu say jëf innama yataqabalullah min al muttaqin soo ragul yàlla yàlla du nangu sa dara moo tax al bir yàlla tomb bu mu ci njëkk gëm mooy al iman al imaanu billah ku nekk nag xam ne lan mooy al imaanu billah nan la ñuy gëmee yàlla ndax tomb la bu jara taxaw al imaanu billah nekkul ne ku mu neex rek nu la neex nga gëmee yàlla yàlla subhanahu wa taala dafa am anam wu yonent bi jàngalee ne nii la ñuy gëmee yàlla sahaaba yi ñëw nekk ci taabiin yi ñëw nekk ci kon ñun loolu rek moo ñu ci war loolu moo tax gis nga yàlla bi muy tagg yonent yi di leen seedeel ne ñoom teg nañ yàlla fiñ ko war a teg dafa ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin yàlla daa ñaanal yonent yi mu ne wa salaamun sama jàmm alal mursalina yàlla na nekk ci yonent yi xam ngeen lu tax yàlla ñaanal yonent yi parce que ñoom ñoo teg yàlla fi ñu ko war a teg moo tax yàlla mu ne wa salaamun alal mursalin parce que ñoom imaan bi leen yàlla won ne nii la ñuy gëmee yàlla ñoom teg nañ boobu imaan ñoom teguñu dendalewuñu yàlla ak leen al imaanu billah ci yàlla kennam gu mu nekk kenn ci yàlla mën gu mu mën lépp wéet gu mu wéet régler bu muy régler problème yi alqiyaamu bi nafsi wal muxaalafatu lil xawaadis nuroowul ak kenn lenn nuroowul ak moom sifaat yooyu ngay jàng ba nga xam nan la ñuy gëmee yàlla tey bokk na ci ay jullit boo leen laajee ana yàlla ñu ne la mu ngi fépp te loolu ñaari firi la yàllaa ngi fépp boo ci jubloo jëmmam rek yow sa pas-pas bi wérul parce que yàlla nekkul fépp yàlla biñ ko laajee dafa ne arrahmanu alal arshi stawa yàlla mu ngi arsh lan moo nekk fépp mooy xam-xamam ak kàttanam ak mën-mënam moo yegg fépp mbir yu sew la yoo xam ne foo ñu delluwaat ci téere yi aqiida yi ñu jàngaat ko pour ñu mën a am al imaanu billah yàlla du ñaar yàlla amul soxna yàlla amul doom yàlla du tële yàlla du nelaw yàlla kenn la fa kullama xatara bi balika fa allahu bi xilaafi zalik tey ñi naan dañuy gis yàlla loolu lañ jàngul moo tax ñuy gam-gamle di nattatle lu nekk ñu koy wax ci yàlla subhanahu wa taala sunu borom sunu borom mu ne loolu ngeen def da ngeen war a bàyyi bañ pare parce que da ngeen ñuy walakin al birra waaye mbaax man amana billahi mooy dañuy gëm yàlla wal yawmil axir gëm al'axira mooy ñaareel al imaanu billah mooy premier loo ci teg mooy al imaanu bil yawmil axir foog ak julli gëm ne am na bis boo xam ne moo ngi ñëw nii sunu kanam muy bisu al'axira ñaata yoon ngeen di jàng su yonente sallallahu alayhi wa sallam bu waxee man kaana yuminu billahi lu mu ciy teg doog a wax teg li muy indi man kaana yuminu billahi wal yawmin doog a teg li mu ciy teg lu tax parce que gëm àllaaxira day tax doomu aadama dundam normal soo gëmee àllaaxira say jëf da ngay xool li ngay jëf ëllëg lan la ndax di nga xam ne di nga dem taxaw alaxira ci kanamu yàlla subhanahu wa taala dañ lay jugé donc moo tax da ngay say say jëf day baax da ngay contrôler lan ngay def dangay contrôler lan ngay lekk lan ngay naan parce que da ngay dem àllaaxira moo tax mu ne ginnaaw gëm yàlla man mooy ki nga xam ne amana billahi wal yawmil axir mu gëm bis bu mujj ba muy àllaaxira lu mu ciy teg wal malaaikati mu gëm malaaka yi malaaka yi nu ñu leen di gëmee ñoom tamit xam ne du ñu ay doomu yàlla comme ni ko ñenn ñi di waxee gëm ne malaaka yi ay doomu yàlla lañ malaaka yi duñu doomi yàlla bugg a gëm ne malaaka yi ay garde corps lañ bàyyi bañ pare wal yawmil axir gëm alaaxira wal malaaykati gëm malaaka yi ci ban weenam du ñu doomi yàlla du ñu ay garde corps am waaye ibaadun mukarramuun ay jaam yu sell lañ xuliqu min nuur dañ leen bind ci leer laa yaakuluun wala yashrabuun wala yanaamuun du ñu lekk du ñu naan du ñu nelaw ay jaamam loo xam ne daf leen di sant ñuy def ñuy def comme ñun ñu nekkee ay jaam loolu ñu gëm ci malaaka yi ak yeneen yi nga xam ne loolu la ci boroom xam-xam yi wax ne ñoom loolu lañ wal kitaab ñu gëm téere yi loolu tamit lan la ñuy jural mooy ñu xam ne téere yi la yàlla wàcce pour lan ñu mën a génn ci lëndëm dem ci leer gëm ne yàlla dafa wàcce ay téere yoo xam ne daf ko joxe malaaka yi malaaka malaaka indil ko yonent yi wàcce na ci yooyu soxfi ibrahim tawrata musa injil isa zaburu daawud qur'anu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gëm téere yi ñaataa nga ko ci arkaanul iman ñaata laa limagum gëm yàlla gëm yàlla gëm alaaxira gëm malaaka yi gëm téere yi lan moo ci tegu mu ne wan nabiyiin gëm yonent yi ñoom tamit ay lan lañ ay mbindeef lañ basharun ixtaarahumullah wa arsalahum ilayna yàlla moo leen tànn ci biir jaam yi daal leen di yónni ci ñun ñu nekk ay yonentam mu yónni leen ay nit lañ comme ñun kenn du gëm ne xanaa yonent doomu yàlla la abadan moo tax gis ngeen su ngeen su ngeen dégloo tuuti rek da ngeen di gis ne yéen ak nasaraan yi bokku leen pas-pas dox bokku leen pas-pas parce que yéen da ngeen di gëm ne Muhammad jaamu yàlla la ñoom ñu gëm ne Isa du benn gis nga ni mu wutee moo tax pas-pas bi dañ ko war a jàngal jaam ñi ñu xam ko suñu gëmee téere yooyu ne yàllaa ko wàcce ci yonent yooyu maanaam ni ko yàlla waxee noonu lañ koy gëmee waaye duñ gëm ne lii mooy lii lii mooy lii mooy lii ñun comme ñu koy ñu koy gëmee ñun comme nu mu neexee déedéet pas-pas yi foofu la wutee gëm ne yonent bu nekk yàlla daf laa yónni ci say nit keneen bu ñëwee moom feneen la war a dem te yonent yëpp ñoo bokk mission ñoom yonent yi ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yi ñoo bokk ñoo bokk bàyyi seen diine moo wuuti ñoo bokk benn risaala wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul fi kulli umma la wax rasul lan mooy mission bi mooy an nibudullah nañ jaamu yàlla kese bu kenn bokkaale yàlla moo tax mu ne wan nabiyiin ak yonent yi dañ leen war a gëm ñoom it xam ne yàllaa leen yónni lu mu ci teg wa aatal maala nga joxe sa alal ala xubbihi te bi nga koy joxe yaa ngi ko bëgg aatal maal haysu taayini itaahu ma a shiddati xubbihi lahu ba muy joxe alal ji mbëggee la ma ngi ci alal ji lantanaalul bir hatta tunfiqu gis nga aaya lantanaalul bir hatta tunfiqu min ma tuhibbun day ñëw correspondre ak aaya bi ne yàlla ne laysal bir ñaar yëpp bir la ngi ci fee lan la wax du ngeen mën a gëm yàlla lu dul ngeen joxe li ngeen gën a bëgg moom ngeen di joxe yàlla mu ne fii mbaax nekkul ngeen di jublu penku di jublu sow ba muy lim mbaax lan la mu ne ngeen joxe seen alal fekk yéen a ngi ko bëgg gis ngeen aaya yi li ñu dëppoo nekk benn parce que lu tax parce que fa mu jóge kenn la joxe alal ma shiddati hubbihi fa aasara ma yuhibbuhu llahu ala ma yuhibbuhu xam ngeen lu tax nit di joxe alal fekk alal ji mi ngi ko bëgg ko xam lu tax bismillah keneen li tax ngay joxe alal ji mooy dangaa gënal bëgg-bëggu yàlla ci sa bëgg-bëgg waaye yàlla dafa bëgg ku joxe ku jox miskiina mi comme yàlla dafa bëgg nga yow nga bàyyi sa bëgg-bëgg def bëgg-bëggu yàlla di nga wax bu baax loolu nu mu seere ci yow yaa ngi ko bëgg lool nga bàyyi bëgg-bëgg boobu daal di def bëgg-bëggu yàlla yàlla lan la bëgg mooy nga joxe sa alal ci nga génne ko daal di koy joxe moo tax yàlla mu ne wa aatal maala mi ngi joxe alalam ala hubbihi fekk mi ngi ko bëgg ñan la koy jox zawil qurba gis ngeen tom bu njëkk moo tax diine lislaam rek mooy diine mooy njub leneen lu dul moom ak ndëngte la tey ñun lu ñu tàmm mooy kii joxe dem joxe ci biti jox ay sàmba àllaar jox jox pour lan parce que xam nga lu tax sa papa ak sa yaay ak say frère ak nangam nangam ñooñu boo leen joxee du ñu takk ay rajo di la way tey laay déglu rajo benn waay muy wax ci problème mu ceeb bi ba caagu muy nettali benn maamam nee na maamam boobu dafa sañoon am doole dafa mus a jaar ci benn dëkk rek ay géwél yuuxu ko rek tagg ko rek mu dem ci toolu jàmbur daal di koy dagg ay xaaj xaaj ku nekk mu may la toolu jàmbur de mu ne leen dagg ku nekk mu daggal ko ci benn koñ ne jël leen toolu jàmbur loolu soo ko defaloon sa papa est-ce que dina la may dina la dina la tagg moo tax yàlla bu ne bu ñuy bu ngeen di joxe ngeen jox kan ala hubbihi kan zawil qurba seeni way jege ñaale ashaabul qaraba al aqrabu fal aqrab ñi gën a jege ngay njëkk a jox gis nga papa ak yaay kenn du leen jox azak lu tax parce que yow yaa leen war a dundal da nga leen war a jox yo benn waay am na problème ak baayam ci alal bi mu ñëwee lan la ko yox lan la ko yonent bi wax anta wa maaluka li abik yow yaag sa alal lépp sa bàyyi leen moom anta wa maaluka li abik tey doomu aadama yi bu ñuy joxe ñu gën a sori la ñuy taamu jox leen te gis ngeen alxuraan lu mu wax zawil qurba way jege ñaale yi islam chaque jour dafa fonk jege ñaale gis nga même bu nit deewee ñu ne al aqrabu awla ñi ko jege ñoo yey ci moom keneen amul droit même bu ñuy xeex bu fekkee xeex la jihaad yàlla mu ne waqaatil lazina yalunakum min al kuffar xeex leen ak yéeféer yi leen jege balaa ngeen dem di xeexi ji yéeféeru France yéen waa Sénégal njëkki leen yéeféeru Sénégal ba pare bu fekkee daawa la mu ne wanzir asirataka al aqrabin al aqrab gis nga jege ku jege dañ ko war a bàyyi xel chaque jour balaa ñuy dem keneen balaa may dem di baari ñeneen sama waa kër ba pare balaa ngay dem di jox keneen sa waa kër ba pare léeg nga gis koo xam ne këram añuñu bu rombee ci mbedd bi ñu koy sànni ay mbax nekk ay musóor loolu nag du diine diine mu ngi nii mooy wa aatal maala na joxe alal ala xubbihi waaye ñan zawil qurba ay jege ñaale après ñooñu mu ne wal yataama ak jirim yi ñi seen baay gaañu jirim yi ndeysaan alyatama jamu yatim wa huwa man mata walidahu aw waliduhu wa huwa lam yablagh alxansa mooy ku baayam gaañu te majeurul kooku jirim la dañ ko war a jàppale dimbali ko bal alxuraan sax dafa rëbb tere ñiy lekk alalu jirim inna lazina yaakuluuna amwaalal yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran ñi lekk alalu jirim ci tooñ yàlla nee na ñooñu safara la ñuy lekk yonent bi bégal na ku yar yatim mu ne ana wa kaafilul yatim fil janna mu ne nii mu ne ni ñaari baaraam yi baaraamu joxoñ bi ak bi ci tegu mu ne man ak ku yar jirim nii la ñuy dëkke yowmal qiyaamati nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na bi su feet korite bu gis ay xale di foo ci mbedd mi ñu ngi sangu ba set sol seeni yére di fo mu gis benn xale mu ngi tafu ci tàppaat yi ci seng yi yére yaa ngi tilim mu ngi triste yonent bi ne ko doo dem foo ci xale yi mu ne ko déedéet mu ne ko ana sa papa mu ne ko dee na yonent bi daal di koy yóbbu këram bi mu ko yóbbee këram joxe ndigal ñu sang ko ba pare solal ko yére mu ne ko ndax bëgg nga Ali nekk sa mag bu góor mu ne waaw mu ne ko ndax bëgg nga Aïcha nekk sa yaay mu ne waaw ndax bëgg nga Fatima nekk sa mag bu jigéen mu ne waaw ci la xam ne yonent bi mooy wax ak moom bi yonent bi génnee àdduna xale boobu fekk màgg na dafa génn ci mbedd yi nag naan maa ngi doog a ñàkk ndey ak baay nag tey laa ñàkk nag baay dëgg dëgg tey laa ko ñàkk noonu la yonent boobu def sallallahu alayhi wa sallam def xale boobu kon lislaam sunu diine bu fekkoon ne ñu ngi ñu ngi koy dund kon ku tumaranke doo am ci kaw suuf ku tumaranke diine ju mel nii xoolal jirim mu naa la nga fonk jirim parce que yàlla moo ne la nga fonk ñaata jirim ñoo am ci dëkk bi nga am alal mu ne balaa kenn say mbokk diine ju mel nii dundin wu mel nii bu ko doomu aadama yi doon dund tey lan ngeen di foog kon jàmm mooy am ci kaw suuf kon aljanna jooju ngeen dégg tey mooy de yi naan aljanna amul aljanna ci kaw suuf la rek yàlla da koy naay salaatal daal di fi bàyyi nit ñi kon dañuy dund ñun àjjana jooju balaa ñuy dem aljanna àllaaxira ñun nag gëmuñu loolu ñun liñ gëm mooy aljanna àllaaxira dafa am ñun gëmuñu bu tey mooy de yi lan la sunu borom teg ci jirim yi mu ne wal masaakiin ak miskiin yi xoolal rek alal ji kañ lañ koy jox say mbokk boo joxee say mbokk ba pare koo ciy teg mu ne teg ci jirim yi koo ciy teg mu ne miskiin yi wal masaakiin jamu miskiin faqiir ku ñàkk maadum ku amul askanatul xaaja falam yaqdir ala tasarruf aajo moo tax munul dem di tàllal loxo ndeysaan yàllaa ngi tagg saxaaba yi ci alquran mu ne saxaaba yi am na ci ñoo xam ne du ñu dem di ñaan waaye da ngay soo xoolee seen kanam da ngay xam ne ñii dañoo ñàkk mais du dañoo réy de dañoo mënul dem di tàllal loxo mënuñu ko laa yasaluna naasa ilhafa mënuñu ko te pourtant amaana nga gis waa ji ci jàkka ji muy xëcc ak yow sàppe premier fekk ndékkiwul amaana nga gis ko muy xëcc ak yow sàppe premier fekk añul amaana mu ñëw nga gis ko timis wala gee fekk mu ngi nii di dem bu demee day naan ndox te du reer pour yow nag kii ay ginaar la war a reer tey miskin ku amul dara faqiir ku ñàkk kenn bugg ko nag ci ñun waaye pourtant yonent bi saa salaam naa ñaan na ko yàlla de nee na yàlla yàlla nag ma def miskin yàlla nag ma def may dund ànd ak miskin yi may dee ànd ak miskin yi may dekki ànd ak miskin yi parce que yowmal qiyaamati miskin yi ñooy dugg aljanna ba mu juróom fukki at borom alal yi doog a ñëw juróom fukki at juróomi téeméeri at juróomi téeméeri at ah du junni boo ko daggee ci digg bi mooy juróomi téeméer juróomi téeméeri at la miskin yi di dugg aljanna borom alal li doog a ñëw inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'uddun benn jour ci yàlla mooy junni at mooy junni benn jour ci yàlla mooy sunu junni at yonent bi nee na miskin yi dañuy dugg genn wàllu bis genn wàllu bis la ñuy dugg aljanna ba pare ñeneen ñi doog a ñëw kon genn wàllu bis bi ñaata at la juróomi téeméeri at nisfu nisful yow mi la ñuy dugg bu ñu xëyee miskin yi ñooy dugg dugg dugg dugg dugg ba journée bi nekk ci digg bi yàlla mu ne borom alal yi ñëw leen doog a dugg miskin yi kenn ci ñun nag bëggul nekk miskin lan la sunu borom subhanahu wa taala teg ci miskin yi mu ne wabna sabil ak doomu tukkikat yi al musaafir al baid ad dar al munqati an ahlihi wa maalihi al musaafir al baid mooy ku jóge ci étranger jóge dëkk bu sori daal di ñëw dëkk jàmbur kooku dem na ba amatul dara mbokkam yi sori nañ ko yorul alal xoolal lislaam mu ne kooku dañ ko war a dimbali allahu akbar aaya bi lan lay réglé ah gis ngeen économique àdduna pour nit ñi nu ñuy dundee bu li amoon sàcc du am agressé du am rey nit dajj bitigam rey nit wala jël dajj këram du am parce que kooku ñuy ñu dimbali du dem di sàcc gis ngeen lislaam nu mu ñuy réglé sunu àdduna sunuy problème yàlla mu ne wabni sabil étranger bu jógee dëkkam ñëw dëkku jàmbur dem ba tumaranke na ko julli di dimbali kan la suñu borom teg ci kooku mu ne wasaa'iliin allahu akbar jamu saa'iliin alfaqir ak ku yelwaan kii moom dafa ñàkk ba mënatul tee boppam mu génn ci mbedd mi alfaqir almuhtaaj allazi azana lahu fi suaali li dafi gailihi alxaaja fi nafsihi dem na ndeysaan ba tumaranke na mi ngi dem ci mbedd mi di ñaan nañ ko jox suñ paree ci kooku wa fi riqaab ki bëgg a jotu wa fi riqaab ki bëgg a jotu ar riqaab jamu raqaba wal infaaqu maa minha maanaahu fi atqiha mooy ki nga xam ne jaam la esclave la comme Bilal ni mu nekke woon kooku nañ ko jox pour mu am alal mën a dajale fay boo jaam boroomam bi ki ko moom ngir mu mun a am indépendance boppam am liberté dootul nekk jaam kooku tamit lislaam nee na nañ ko jox wa fi riqaab mooy ku nekkoon jaam on wiya toon maccuɗo a totton mo mbele o heɓa hoore makko noon noon wiya toon aywa gis ngeen liñ doon wax sànq ñaataa ngi noonu yàlla réglé kon nit bala muy gëm yàlla foog jikko yi nekk ci moom moo tax yàlla mu ne mbaax mooy lii est-ce que lii yomb na ah lii yëpp ñu wax ñun bi ñuy doog a tànn mi ngi doog a ñëw ñun ñun ñun ñun waa Sénégal bi ñuy wax nit baax na mi ngi nit doog a ñëw mooy waa aqaama salaata mu doog a julli nag wala yàlla fi mu tàmbalee mu ne lii mooy baax ku mel ni yaa baax mu doog cee boole julli léegi la julli di doog a ñëw waa aqaama salaata bu waa ji defee lii lépp ba yegg si fii ñu ne amu yàlla mu ne waa léegi nag mën naa dem jàkka ja ndax du sàcc daal lii du laal li mokket yi du jël rajo bi du fa buuxante du fa xuloo du fa yëkkati kàddu ndax léegi imaan bi dugg na léegi nag mën naa julli wa aqaama salaata mu taxawal julli gis ngeen wax ci gis ngeen yàlla li mu njëkk a raxas ci waa ji ba pare li mu njëkk a dindi ci moom maanaam yàlla bala mu koy jaamuloo yàlla dafa am lu mu def ci moom ba pare gëm yàlla imaan bi la yàlla njëkk a jafar xol bi ba xol bi baax yàlla ba tey rek xam ngeen li waa mbokk bi waxoon sànq alal dafa sax ci xol yàlla dindi tilim tilim yi ci xol bi mu nangu dimbali ay mbokkam na nangu dimbali jirim yi nangu dimbali miskin yi nangu dimbali nangu nangu ba léegi nag xam nga baax na yàlla mu ne ko léegi nag mën ngaa ñëw aqaama salaata nga doog a ñëw julli si kii mel nii bu ñëwee ci jàkk bu ilimaan tardé mën nañ koo jiital bu bilaal bi ñëwul mën naa nodd mën naa li xam imaginel bu ñëpp meloon nii di ñëw jàkk est-ce que danañ julli ba pare jàkka ji ñu naan am nañ ko ñu war a dimbali wa aqama salaata mu taxawal julli nan la ñuy taxawalee julli ci mbooleem anam yi taxawal julli dafa am lu ko jiitu ci sàmmonteeg sart laab yi ba mu mat nga doog a ñëw taxawal julli wa aqama salaata su paree mu ne wa aata zakata mu joxe alal munoon nañoo wax ne waaw sunu borom lu tax mu wax fee nañ joxe alal ba pare mu ñëwaat fii ne nañ joxe azaka parce que ñu bëri ci ñun dañuy yaakaar ne azaka soo ko xasee génne rek jeex na waratoo def yeneen mbaax fekk alal du azaka rek lañ ciy génnee du azaka kese bu fekkoon ne azaka kese lañ ciy génne kon sunu borom subhanahu wa taala day dëxëñ lii rek ci biir azaka azaka encore bi yàlla wax soo demaatee ci aaya ba nga fekk mu yàlla tracé ne ñii ñi lañ koy jox ñii ñii lañ koy jox ñii ñii ñii la ñuy jox azaka bi ah kon mbokk yi nañu yëg ne ñun liñ yor ñu bëri yoruwuñ ko mbokk yi mooy diine joo xam ne day régler problème mu àdduna régler problème mu àllaaxira régler mbirum àdduna régler mbirum àllaaxira kon lan moo ñu ci war mooy ñu taxaw pour jéem ko dund Sénégal fekk taxawuñ bu ñu dund lislaam rek dañuy sonn bu ñu jógee ci lii rek dañuy dugaat ci leneen wa aqama salaata taxawal julli wa aata zakata joxe azaka mu ñëwaat ci beneen mbir wal muufuuna bi ahadihim isa ahadu wal muufuuna ñi nga xam ne dañuy matal bi ahadihim seen dikk ñi nga xam ne dañuy respecté dikk isa ahadu bu ñu diggee bu ñu nee waaw waaw la bu ñu nee déet déet la bu ñu la nee dinaa ñëw dina ñëw bu ñu la nee duñ ñëw duñ ñëw bu ñu la nee dinaa la jox dinaa la jox aaya bi sunu borom baamtu na ko ci alquran ay yooni yooni yooni yooni yoon pour doomu aadama yi respecté dig wal muufuuna ñi nga xam ne dañuy matal bi ahadihim seen dig isa ahadu bu ñu digee luñ la wax danañ ko def mais xoolal tey fan ngeen toll ci jamono lan mooy problème mu Sénégal tey maa waxoon waxeet moom ngeen am tey problème wala amu leen problème boobu ah kay ñi fi dee yëpp loolu moo leen rey yaa waxoon lii léegi mu ne maa waxoon waxe loolu ak aaya bi fan ngeen koy dolla tollale est-ce que aaya bi loolu la wax wal muufuna ñiy respecté bi ahadihim seen parole seen wax isa ahadu bu ñu waxee ba pare moo tax jullit moo am importance jullit du wax di dellu ci ginnaaw jullit lu mu la wax lool iza qulta naam fi daynin fa atimmahu fa inna naam daynun ala alxurri waajib wa illa fa qul la wa tastarih wa tarxabih limaza li allah yaqul annaas annaka kaasib mu ne boo waxatee waaw na nekk waaw boo ne waaw na nekk waaw soo waxee waaw rek nekk na bor te bor ci gor fay da ngay dégg ñu ne gor ca wax ja noonu lañ xàmmee gor yàlla mu ne wal muufuuna ñi nga xam ne dañuy respecté bi ahadihim seen dig isa ahadu bu ñu digee ak ñan wasaabirina ñiy muñ fil basaa i ci jamonoy jafe-jafe wa saabiriina ñi muñ fil ba'saa yi ci jamonoy jafe-jafe wa dorroo al ba'saa mooy siddatul bu'uus mooy tar-tar ci ñàkk ci loru wala feebar yooyu ñooy al ba'saa ad darra mooy feebar ak jafe-jafe xeex ak ay tartaram bu ci mën a ñëw ci ñaar yooyu rek li ci war jullit mooy mu muñ gis nga moo tax mu boole ko ñaar comme ñaar yëpp sabru la ñaar yëpp muñ la mu ne wassaabirina fil ba'sa ñu ne ah mu ne wa darra ñii muñ ci jafe-jafe ñàkk ak mettitu àdduna waaye wa darra ak jafe-jafe feebar wa hiinal baas ak jamono yi mu gënee metti nag mooy jamono bu xeex nga xam ne jaasi yaa ngi yëkkatiku bopp yaa ngi dagg ay loxo ngi dagg ay tànk a ngi dagg indal qitaal wa siddatihi ak tartaram fi sabilillahi ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñii ñëpp gis ngeen muñ as sabru bi ñu laajee borom xam-xam yi lan mooy muñ ñii yàlla seedeel ne ñoom ñoo am gëm yàlla yàlla da cee dugal ñi muñkat yi bi ñu laajee borom xam-xam yi lañ moon muñ ñu ne muñ ñett la muñ topp yàlla muñ mooy yàlla muñ jafe-jafe yi ak feebar yi ñu bari boo nee muñ topp yàlla dañ naan topp yàlla luñ ci muñ topp yàlla kese ku muñul topp yàlla ku muñul yow fajar dem julli ji jàkk da ngeen defe ne ku munul muñ nelaw mun na ko ah jël alal li yàlla doon wax léegi léegi fii nga génne joxe ak xaalis li mbokk bi wax léegi nga xam ne ci xol la nekk kii téyeer yi bañ nañ ko ba bu ñuy ñëw poos bi fan lañ koy def seen poos yi fu mu nekk ban côté ci seen côté dënn bi fan la nekk poos yi boo nee nii rek poos bi fii lay nekk gauche boo nee nii mu daj xol bi yalwaankat bi ne ngir yàlla waa ji dugal nga gis xol bi ne ko attention moytul billet yi mu ne nii loxo bi ci biir billet yi mu ne moytul cent franc yi nga gis loxo bi nekk ci biir di xool ñaar dërëm yeeg dërëm yi naan nii di xool ban moo amul gir ne ni nii mu yàgg fa trop doog a génne te bu fekkee sax yëpp dafa kiyee la muy muy xool juróomi dërëm ak di tàqale juróomi dërëm ak deux cent cinquante ak deux cent loxo bi day yàgg ci biir tur gis nga fi la nekk fii fii la xol nekk fii moo tax ñu la fi defal poos allahu akbar léegi nag boo muñul loolu boo muñul sànq li ñu doon wax nga muñ sa bëgg-bëgg ak bëgg-bëggu yàlla doo joxe alal ji moo tax muñ topp yàlla ku muñul munu ko waaye mooy yàlla fa neex soo muñul doo def mooy yàlla ak a neex ci xol jël jigéenu jàmbur boo takkul alalu jàmbur ah nga jël ko ak leneen ak leneen li ci aju soo muñul dëgg-dëgg doo dem waaw nga xëy suba amoo dépasse nga génn ci jàkk yi ji léeg benn waaye kalfeem ne but daanu nga jël calpe bi ne ni gis dix mille te yow xam nga ne boo demee doo ndékki ah gis nga moo tax foog nga muñ ragal yàlla nga ne ah salaamaaleykum naa nga moo ngi nii ndeysaan am na benn waaye bu foroon versement mburu ay trois cent mille et quelque oto mburu bi doon ko versé ji xaalis bi wadd mu for ko gis nga de ba pare ñëw boor yooyu ne leen bu ngeen déggee ku fi laaj xaalis borom oto bi ñëwaat ñu ne ko am na ku fi jaar léegi kay di laaj mu ñëw mu ne ko ñaata la mu ne ko ah jege na nangam daal dama doon versé ji mburu mu daal di yëkkati jox te waa jooju amul dépasse këram xam nga kooku am na imaan de ah kon am na ñu gëm yàlla subhanahu wa taala am na ba tey yàlla mu ne ulaayka ñii ñi doon lim allazina ñooy ñi nga xam ne sadaqu ñoo dëggu ñii ñoo dëggu ñii ku mel nii ku suñ la ne bu yàlla waxul woon ne kii dafa dëggu sax ñun war nañu xam ne ñii dañoo dëggu lan lañ boole ñaata melokaan lañ boole fukki melokaan lañ boole fukk lañ boole yàlla mu ne ulaayka ñii allazina ñooy ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu wa ulaayika ñii hum ñoom almuttaquuna ñooy ñi ragal yàlla allahu akbar allahuma ij'alna minhum ñii bu yàlla ne dañoo ragal yàlla ñun war nañ xam ne ñii ragal nañ yàlla puisque wane nañ ko léegi kon ragal yàlla du ay wax waaye ragal yàlla lan la jëf al amal suñ ne diw ragal na yàlla war nañ xool lu mu def ñii balaa yàlla ne dëggu nañu balaa yàlla ne ragal nañ ko lan lañ def dañoo jëf gëm nañ yàlla gëm nañ malaaka yi gëm nañ alaaxira gëm nañ téere yi gëm nañ yonent yi joxe nañ seen alal taxawal nañ julli joxe nañ azaka respecté nañ seen rendez-vous muñ nañ fukki melokaan lañ def yàlla mu ne ñii ulaayika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu allahu akbar dëggu nañu parce que dëggal nañ li leen yàlla subhanahu wa taala sant yemuñ ci yàlla mu ne wa ulaayika ñii hum ñoom almuttaquun ñooy ñi ragal yàlla taqwa boobu ñuy ut di ko ut ci koor di ko ut ci jàng alquran di ko ut ci tabaski di ko ut ci lu nekk nga xam ne bépp jaamu yàlla ibaadaat lañ ci wut ibudullaha yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum ibaada bi luñ ci wut ragal yàlla yàlla mu ne iba ragal yàlla googu ñuy wër ñii ñoom am nañ ko lu tax parce que li leen yàlla sant ci ay ibaadaat dañ koo def bañ ko defee rek yàlla mu ne ulaayika humul muttaqun yan lañ ci yàlla boole ixwatal iman li ma doon dar sa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuum tey def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu